alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ولي الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر بالحق والعدل صراطك المستقيم wa ala alihi xaqa qadri wa miqdaar azim mbokki Malben ñu koy seetaan ci biir réew mi biti réew dikk nañ di leen nuyu de siyaare eh, di leen ndokkeel ci weeru mag wi muy weeru rajab eh, rajabul fard mooy rajab bi nga xam ne weeru kenn la weeru benn la weeru kenn la ah weer wi nag <clears throat> mbir mu nekk nag ka ca feeñ mooy wane dayoom kon nag Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moo ci feeñ ca fukki fan yàq juróom ci bésab xamis la woon loolu yëpp benn butin junj bu la xamal kon nag euh, li ñuy wax xilaafa ak silul xilaafa ñoom ñoo dikk euh, feeñ tay ba nag liñ ko wax na ma ko woye woon rek dafa nekk dëkk boo xam ne dafa doy waar ca tuddin wa mooy taybatu bu dee ci araab mooy tayyibatun bu dee moom mooy lu teey waaye tay ba lañ wax mooy luñ tay ba ko ni ma ko xëyee Tayba euh, lu xaab wolof la woon mbóot lañ ubboon tay ka fa woon Ñas juddoo tay ba ñaseen tay ba waaye boo déggee ci tariqa bi kat mi kay mëkk noon mooy luñ dugal ci da biir denceekaay denc ko fa ah denc ba nag anbiyaaw dikk nañ ba wéy su lekkuwul awliyaay dikk ba wéy su lekkuwul gannaaw bañ demee nag la génn nag moom ci fam nekkoon ku ko génne nag la wax maa Abdoulaye Niass lam tayoon te nee na fàng dem daw si leen kon nag xamaa yi daw leen dem leen tay ba yéen maanaam ñu gisul xam lu xew de ñu tay ba leen tay bu mooy garab yi ñuy def pour bët bi gisul gis ñu tay ba leen ngeen gis la woon maa Abdoulaye ñes lam tayoon tey na nag fàng daw si leen kon loolu moom dëgg-dëgg yàlla ñun fi feeñee borom tay bu fi feeñee dafa feeñ ci feeñoo boo xamante ku leer naññi la moom la ma wax léegi ñu ngi ko maa ka juddoo ci xaynul maadi dëkk ba ko tudd kon nag dëkk bu du tuxul waaye waajo feeñ mooy dëkk ba jëmm jëy wiy ndaxte kenn ku ne bàyyi ne na ah waxoo maaka daa iman Cheikh Tidiane ma yow ana ana foo mën a nekk rek dina ànd kooku ma xam nga bu fekkoon ne ma nga toog fale kon du nekk ay maadi ah, kon nag buñ dikkee fii ki feeñ ñu ne tay bax luñ tayoon ba ko fi ki ko ubbi nag mooy alxaaji abdullahi moo ñu ubbi ko mu génn waa ji juddu ca tay ba ña seen tay ba googu nag ñi fi nekk de saalum saalum ñoo ko gën a réeree bari na ku nekk ca gox ba sax te xamoo luy Taïba ndax jël nañ ay yeneen dëkk jox ko importance bu ëpp Taïba fekk nag borom moo bëggee noonu ndax léegi te ñu jàng su ko ci li ci misri wax ak seyxaan liñ ci wax seyxaan yi boo demee ci téere bi ñuy wax afaqu chéri bi nga xam ne Ahmed Ibn Abdallah moo ko def ci passe 21 ba ma ngay wax ci tay ba nee na xaaja fil qalbi kullu sajwin dafinin mawlidu seyqi henda tay ba ñaseeni xaaja yëngatu na fil qalbi sama xol alif ak laam moo ci moo ti demit fi qalbi sama xol la wax lan la ca yëgat kulla sëj win bépp njàqare dafin yoo xam ne ñu nga fa robo njàqare ya suulu woon ca sama xol ba am na lu ko yëngat ñu ne ko ma seyxaan lu yëngal loolu mu ne mawlidu seyxi juddu sëriñ ba xend tay ba ñeseen ca tay ba ñeseen juddu googa moo yëngal sama xol man seyxaani ah, ah ñu ne ko num demee mu ne barasat min asaya eh, aysu badali safaratun mënotatun bi anini barasat génn na min hasaaye sama digg dari biir yi diggante ñaar dari biir yi mooy wàlli xay su badaa ba feeñee lii ñel ma man ba ma ne jàkk tey ba rek ah dafa am lu ne bërit génn ci man muy lan safaraatun ay jë ah moo commencé ah mënoo tatun boo xam ne dañ koo aj bi andi nit ay jooye ko onk man ba ma séen tey ba mënumaa téye sama rongo ji ma commencé boole ko ak onk wali qalbi ladayhi min ihtiraqun wali damhi tahallubun min jufooni wali bi ñaan sama xol لدي فا طيبة إي تراقل أي لك منو بوجيس طيبة رك سما قل باغي لك ولي دام إيه نيالا سما رمجا تالوغون رتو min jufoni sambari badiya samaronga ñange wam ɓayi ko sambari badi man siqani sayi qif bihi sayi qif bihi bi afaru qaddi wo jufoni min turbihi wo jabini saa yi bi la bëggoon wax waaye woy tax ay yow sama àndoo bi xiif taxawal bii ànd ak man bii ca tey ba taxawal mag ñun ñaar nañ taxaw ñoom nag buñ ko wax mooy seen àndoo mooy mbëggeel taxawal tuuti su ko defee afur ma ruut xaddi sama lex may ma rek ma wàcce jël sama lex yi dem ko ci suufi tey ba yi wajjufoo nii ak sama mbët yi mbët yi ah ma sujjut min tur bi ci suufam wajjëb na ak sama jëb yëpp may ma rek sama lex bi sama mbari bët sama jëbi may ma rek tuuti rek inna min turbatin inna min bada kullu turbin wa tabada min yoonihi kullu yoonin <laughs> di teel inna min turbihi ngi bàyyi koo ci suuf suufam sa ba daal feeñee kullu turbin bépp suuf ca suufu tey bala feeñee wax na dëgg de <laughs> suuf yépp ma nga génne ca tey ba ndaxte turbu mooy taraba yareekaay rabba taraba kon nag lépp loo xam ne ma ngay yaru de focc di génn ma nga génnee ca ba nga xamante ni moom wa tabada min yoonihi kulli yooni yoonam wa nag moom jaar yoon yëpp ñu nga jaare ci yoonu Tayba defe naa moom la si jublu fuy yoon woo gis mu yoonu siraatul mustaqim ma nga bàyyi ko ci yoon boobu ayyuhal mawdul karimu fa inni bi ka soolaw atin wa sawqin rahini ayyuhal mawlidu e yow juddu ah, ban juddu baay bi alkarim bu tedd fa inni man say xàndeey bi ka ceew soo law atin borom lakk xollaa wa sawqi soo mbëggeel gi rahinu ñu ko tayle de man xam nga buñ jëlee sa luñ la tayle tayle boo xam ne borom du ko jëli du ko du ko jël si mooy tayle mbëggeel suma mbëggeel gi yow laa ko tayle in takun aminan fa innaka baaun baarisun minka kulla rain wa sin wa siini boo nekkee xaamilan bu fekkee ne dëkk nga boo xam ne xamuñ yaay kan sax ndaxte bari na ko dégg tey ba xamoo luy mooy kaamil bu dee danga nga nekk koo xamante ni ah ak lu ñu la ñàkkaa xam a xam ak lu ñu fonka di fonka di fonka di fa ina xew dey baa un yaay baa de baa yow la baa di suñ génnee mi ngi ki cëw ku la raa in wa siin siin bépp raa ak siin cëw la yëpp ci yow baa gi la génnee yow de yaay baa yow mii buñ xamu tay ba tay ba yaay baa raa ak siin goo fi gis ci yow la génnee ak siru boo gis rek aw yakun fiika baadurinin fa kam han kullu qalbin bi kal injala kularini in yakun bu nekkee fiika caw baadurinin lenn koo xam ne ñàkk a xàmme xol yi maanaam xol yi bu fekkee ne dañoo fatt ah bu dee xol yi dañoo takk xamuñ la fa kam han kulli qalbin bi kay da maanaam fa kam xat jalaa bëri na fomp xan kulli xalbin bépp xol bi ko cew kulla réynin bépp tilim tilim bu nekkoon ci xol xol yi buñ tilimee ba xamuñ la bëri na xol yoo xam ne ci cew lañ fompoo ba set wecci ba xam lu xew li waaye nag nit ñi dañoo tilim ba xamuñ sax tey ba am na ñoo xamante ni ñu nga ci digg tey ba am ñoo xam ne ñu nga dënd ci tey ba sax te xamuñ ñu nga de tey ba xamuñ liy tey ba tey ba daf dëkk ordinaire déedéet yaay baa goo xam ne ci la sin ak ra ak sin génnee yaay dëkk boo xam ne xol bu ci tilimit yow yaay fomp xol yi bañ set wecc kàllaa bara naa la xolo bi maakaan rek si ba bi alquran wax ban na xol boo xamante ni foofu la pompo maa ngi ñaan gars yi nga la waay buñ demee tay ba waaye nañ fexe xol yi fomp waay mawlid si teyki in yëkku ah, eh, in ah, in na baynaka yëpp doo maa kullil biqaahi asuma booni mawlidu Seex yow juddoo Seex Seex Ibrahima inna baynaka yabdoo sa diggante lay feeñ kulla biqaain bépp teenee boo xam ne asama boobu nin li gën a màgg ci mànding boobu nu mooy firi mànding yow yow terrain yi nga xam ne ñoo gën a sori ay ligne bi maanaam Manding yow mii nii ah boo fekkee ne yaa ngi fi nekk fii ñu lay xool nii Tayba in yëkku yëpp doo maa kulli baqa añ ason ba ni yàgg na màgg ci terrain yëpp maanaam Manding yëpp su ñu xoolee sa tutaay si ñu ne dëkkab kaw la <laughs> déedéet ah yow yàgg na màgg ci nga xamante ni mooy Manding طلعت في برج سعود السعودي ماتيما قد بدا فيك سمت علم ودين طلعت فيك في برج السعودي ci biddiw taxe mi ah, matema xat badaa yow tay ba yaa fenk ci biddiw taxe kañ ba nga xam ne feeñi ci yow mm, samsun samsi elmi jantu xam-xam wa diina ak jant diina bam jantee ba mu fenkee ci yow yow Tayba yow nag ci la biddiw bi nga xam ne mooy biddiw texee ci foofu la feeñee ak lan wa tuqaa ak jant ragal yàlla ba ak lan wantiqaalun ak jant boo xamante ni mooy intiqaal mooy jant bi nga xam ne ci la ñuy sànnee seggee li saa lil masaakiina ci miskin ya ah yow yaa dikk buñ ne miskin fii nag ñi nga xam ne dañoo soxlawuñ dara yàlla rek dañoo dàq seen nekk ba day am fa am dara seen nekk ka yow nag yaa dikk de intiqaal segg ñi nga xam ne miskin ne ku la sëy in lépp loo xam ne seminin mbir yi nga xam ne foor nañ am njëg gu seer tey yow yaa dikk seggal leen indi leen Ah, njëg ah, caq boo xamante ni wala or boo xamante ni dafa dafa sert mooy or maarifa xay sulu seyqi kunta maskata raxsin wabtihaajan li alamin takwini xay sulu seyqi xay su kunti ba nga nekkee maskata raxsin da waddeekaay bopp lu seyqi ñeel Cheikh Ibrahima fii la bàyyi wadalee boppam xam nga doom bu juddu doo bopp ba mooy njëkk a wàcc wadd ci suuf yow bala yàlla defee yaay waddeekaay bopp Cheikh Cheikh Ibrahima lii nga nekkee nag rawe ñëpp wabti haajan yaa nekk mbégte li xaalami tëkkwin xaalam bi nga xam ne xaalamu tëkkwin la xaalamu nekk yow yaa nekk de koo xamante ni mbégte alamu tëkkwin nga alam bi yëpp fii lañu koy fii la ñuy kontaanee ndax ndaxte alamu tëkkwin ah muy kun kun ah ah maqaama kun kun wa rabbi aataani maqaama kunkuni loolu la wax ca réeru Conakry wa rabbu aataani maqaama kunkuni kun kun jox nañ ma ko kun kun ngoogu nag ñoom ñaari kun kun yooyu nag fu ñuy bigee ñi ngiy bigee fi nga xam ne mooy maqaam bi nga xam ne mooy xam nga nekkitee fi nga xam ne fi nekkitee fi nekkee ba mën a nekk ñu mën leen a former mooy maqaamu tukkiwin bii bi nga nekkee yow nag yaaw yaay rotekaayu maqaam bii bégloo nga ñi nga xamante ne ñooy ah, ah, mukawinaat yëpp bég nañ ah, wali aynil butooni xay nu sóori wali ayni sóori xay nil butooni yow wa aynu sóori yaay jëmi feeñ bi feeñ lil butoon ñeel butoon yëpp mboolem butoon yi seen yaay seen jëmi saayir yaa xam butoon nag ay butoonaat yëpp fu butoon butoonee yow yaay seen feeñekuwaay yow wa aynul butoon yaay jëmi butoon la aynu sóor ci jëmi aynu sóor xam nga loolu mooy aynu sóor yaa jëmi butoon kooku mooy wilaaya bi kële nag yaa nekk di jëmam moom yoo xamante ni mooy wilaaya bi loolu laa la bëgg a wax wali aynil butoon yi wa aynu sóor yi li aynil butoon ndax rasoolu numéro rasoolu numéro un bi moom moom moo nekk de jëmi bu tóoni bu tóoni bu tóon li ay nal bu tóoni waaye nag bi nga xamante ni nga xam ne moom liggéey xam ne mooy sóoru xayoon nga xam ne mooy saayiru bu tóoni yow nag saayiru bu ton yaa nekkat de bu tóonam mbaa diw la mooy numéro deux saayiru diw la mooy numéro yow nag ba nga dikkee nag yow yaa nekk de xay na suhóor li aynal bu tóoni wa aynal bu tóon li ay na waa lii ko xamul li ma wax lii man naa nekk xam naa kii dégg nga kon nag kii mooy Majmahul Bahrayni <laughs> dégg nga de ah kon nag waa jaa ngi nii de wali helmil yaqiini xaynul yaqiini wali aynul yaqiini xaqul yaqiini ah, ne ko wa aynul yaqiin yow yaay jëmmi buñ koy wax. yow xayru yëqin nga bi maanaa gitte kaat moo tax bàyyi def ne man maarifatan yaqiiniyan sóodiyan yaqiiniyan maarif bu muy indi ma may da ngeen dikkal leen moom xool ko gis ko ne lii la waaw léegi tey ñu àgg ci maarif boo xamante maarif boobu nag yow nga ne bu ko fa kenn wax waaye yow ba ba càggu nag da ngaa xam ne yow da ngaa da ngaa leer a waaye mi ngi nii kat misi wax na ko Cheikh Khali Kouar moo ko njëkk a xuusas gi yow wa aynul yaqiini li ilmil yaqiin wa aqul yaqiini li anil yaqin yow yaay xaqul yaqin bu ñax yi anil yaqin xaqul yaqin nga ah nag lii nag kan ku ko wax du ustaas jëre xaynul yaqin nga xaqul yaqin nga ah kon nag léegi bu ñu dikkee ci xaynul a xaqul yaqin nga ba ko bàyyi nag yow fi nga mooy xel mu ba nga xam ne mooy xel mu xëy bu ma hmm? yow de yaa ko def ah mawlidun ah barsaqil la ah, eh, jàll maa ab dat mi na eh, xam-xamin wa min takwini mawlidun juddu bi nga xam ne waa ji nga xam ne mooy intermédiaire intermédiaire yi waa ji nga xam ne mooy barsaqul barasaqi juddoom ba moom nag la mawlidul barsaqi alasi ah jàlla maa abdayta jàlla màgg na maa abdayta la nga feeñal min xam-xamin xam-xam nga naar yi moom du ñu waxtaane baatu wala leneen li nga feeñal ci xam-xam wa min takwin ak kun fay kun yow juddu bii nga xam ne yaay juddu waa ji ci tey ba ñu set yow la nga indi ne ci xam-xam ah waaw xam-xam wa teggiini ba tey ak tëggi ah tëgg ah, wa tëggi wa tëggiini tëggiini tëggiini mooy teggiin loolu la bëggoon wax bi maanaa baat la xamante ni mu ne ah al adab waaw kay filuka mu ne boo demee mu ne li nga feeñal ci ay xam-xam ak adab bu ñu ne teggiin nag mooy ay li wax adab xam-xamu adab ak xam-xamu saay bu nga indi fii ki yow tey ba xaal bii sama xol man say xaani yëpp xaala des xati nan fii la dëkk nag moo tax koo dem tay ba soo yëgee soo yëgut foofu la xolab say xaan nekk isaama ah, hendal gis mi taa yoo xamante ni fa yarama kaan nekk na maanaam isaa kaane hendal gis mi xayru xatin su fa yarami dëkk fii la ñu ne ma nga murtani xol bi moom génnu tay ba ah koo jàpp nag ne ma nga say xaan ma nga tay ba waaye kon li ëpp doole kay kon nag na naan la yow euh, Tayba yàlla kulla habiyin bépp niir jaa boo xam ne ñëw na te joodu di ko tabe kulla raadin bépp dënn atun bokk na fay dot yàlla na yàlla taw tawala taw boo xam dafa ànd ak dënn yoo xam dafa naa rid rit de sut daw wa salaatun alal bu tóoni la si kat kaana mawjoodan qabla kaafin wa nuuni ba mu jeexalee ko rëy na ba ëpp kat wa salaatu salaatu xalal bu tóon yàlla na bu nekk ca bu tóon ëllëg bi nga xam ne xat kaa nekk na moo joo dan de koñ amal xam kaaf ba kaaf de amat wa nuun ba kun de amut yow moo tax dama wax ne xetu kun moom dalu ko moom xetu kun dalu ko de ba ngay nekk lu jiitu kaaf ak nuun yow yaa nekkoon am nga yow kon nag yàlla na salaat nekk ci buttoon bi nga xam ne mooy buttoonu buttoon cëb nduqu nduqaan loolu la wax ma ma mos ci misiri tuuti ah su ko defee ñu doog a ah, daan seykaane ñu ngi koy ndokkeel waaw misiri la wax yow nag <coughs> ah waxal ñu sa sa sa dëkkuwaay ji ah, mu ne mi ngi ko wax ci paasu 40 bi ci suuf ataybata xadnil xadni laa simti hakata wala sala mamdoodan bikal badu wal misru ataybata xadnil xadni ee yow taybaab xat boobu xadmu ba xat moobu xadmu ba taybaam nga laa silti yàlla bul jox hakasa comme nekk ci na nga nekkee noonu yow yokke xam nga kon lu xootu dëkk de jëmm ji nga xam ne mooy taybaab tay ba nga xam ne mooy xat mooy xat moobu xadmu bi ndax jàng ak xatmatu ak xatmu xatmi ñaari xatmu ye keneen yow lay woo ah, yàlla bul jog ci li nga nekkee nii wala saala yàlla bu jog moom doo dan ngay ku ñu tëdd di ko caw albaru ñu nekkee ca dëkki àll ya wal misri ak ñu nekkee ci dëkki capital yi yàlla bu seen tëb di jog ci yow ñan ñooy dëkk ca kaw ga mooy ñee xam ne xamuñu xew li ñan ñoo dëkk ca teeru ba mooy ñu xam ne xew li xaarif yi ni nga xam ne xam nañ ñu xew li comme naka misir yi ne ak naar yi yow yàlla bul jóg den tëbb ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkk ci kaw ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci capital bi wala saala fiikal fay wal ilmu wa tuqaa wala saala fiikal jësbu wa saxwu wa sukk wala saala yàlla bu jóg fii ka cew tay al faydu faydu yàlla na fi sax wal xam-xam yàlla na fi sax wa tuqaa yàlla ñoom ñetti ñii yàlla buñ jóg ci biir Taïba ah xam naa ku toog ba ne ñoom nag dem nañ ministre yi moom ne ah moom day ñoom ñett ñu ngi fi sax ñu nga Taïba de xanaa yow yaa xamul nañi nga ne yonent dem na Cheikh Tidiane dem bàyyi dem waaye ñu nga Taïba akaay ah, ma waxal la <coughs> eh, yi faydu mooy kan xam nga xam nga mooy faydu mooy kan xam nga ne kon nag waaw xel mooy xam mooy jëm yu laay awla xad la xëy na ay na xen bi tuqaa mooy kan ñoom ñetti yii day yàlla buñ jóg ca Tayba ba nag kon mooy kan mooy borom Tayba yàlla buñ jóg wala saala yàlla bu jot fii ko ci yow tay fii ki ci yow bu xëcc gaa yi ñu dellu ci yàlla fu ñu ko jëlee ci borom jës bu wasax yu uri yàlla bu mu ci yow wa sukri mànd ci yàlla wax naa la ñett indi naa la ñett léegi nag muy lëfun wa nasrun murattab léegi nag yaay seet benn bu ci nekk boroom jës bu kan la boroom sawu kan la borom sukkur kan la na nga xamee nag faydu diw la xel mu diw la taqwaa diw la ñett juróom benn gi nii yàlla buñ jog tay ba te bu buñ demee dañ leen fekk tay ba nga la gaay waaye nga buñ dem ba tay ba nag <laughs> ngelaw ñibbisee loxoy nen dem tay ba ñibbisee loxoy nen dem rek nekk ca njaay maag njënd maag di nga maam kumba kumba yàgg lekk yàgg naan kafe yàgg nelaw faw xam nga nit ñi dañuy sonn ba laa guddi jot sax duñu waxat ci tay ba dara bi taybati xayril xalq bi taybata xayril xalq kunti sabihatan fasaa maxribu fasaa maxribul aqsa wa tilka lawal fajr ah, yow kunti nekk nga yow tayba sabihatan di niroot bi taybati xayril xalq da ngaa niroot taybata xayril xalq yéen niroot tayba tayba moo tax bàyyi foo diggee mu waxe tayba lay waxee tayba tayba tayba ah bi taybata ma adraka ma hiya taybatun yaa am amrin haasimi taaqaq lu ma ko wax xam nga luy tay ba yow dikk ceeg jàng yaa ñi ne tey dem naa tay ba de demul tay ba maa maa maa yee tay ba tut yaa am amrin haasimi taaqaq foofu la am mbiram haasim foofu la defee taaqo yow boo dikkee da ngaa war a def taaqo ci tay ba fàtte nit ñi génnal ci nit ñi boo demee ci tay génnal ci nit ñi nga dem ci nga xamante moo tax a dikk tay ba loolu lañ bëgg nag yow nag da ngaa ne tay ba gën a de fasaa bii nii almaqribul aqsa ma sow jant ba nekk ci jëlit ba bii la Sénégal fu ko féete fu ko féete lu ko féete ni fii mooy aksa moo tax bàyyi bu nekkoon nag labbayka talbiyatan min waasilin arafa ah min kawlaqin muntaha dunya ila arafa kon nag fii bu ko tuddee muntaha dunya du tey kon nag bii nii mooy moo tax masjidul aqsa ak masjidul si ñu ne masjidul sarisalem ñu ne Aqsa am ne moom la ne ne Quds moom la déedéet Quds benn beneen waay ko moom Aqsa beneen waay ko moom soo xamee loolu nag <laughs> ko nag <laughs> ka xam ne moo mooy mooy Quds mooy borom baytu moo moom foofu waaye masjidul Aqsa moom du foofa mooy ca jërég ba jërég Saloum Saloum wax ca jërég mooy alal ca fin ba nga xam ne dana fi ko ko yow nag bii nag moo nekk fin ca fin fin ya salaatu wa taslimun ala wa alu asabin biha yarfaul qadru salaatoog salaam xaala rabbi tay ba tin yàlla nekk ci patron may xam mooy patron tay ba ba patron laa ko wax ne waxum borom patron wa alin ak al wa asabin biha ca salaatoog salaam ba yër fon lu ñu yëkkatee alqadr suñu dayo yal nañu yàlla defal salaatu salaam boo xam ne ba ñu ko defalee ci borom rëbb tey ba ci la mën a yëkkatee suñu dara yi kon nag gaa yi misir yi moom itam na salaatu wa ñu ngi ñaan nag ñi ngi waajal Taïba suñ demee Taïba dégg ngeen li li li gars ëmb bi li ñu ëmboon ci ëmb bi ak niñ ko imbee ngal la bu nga kenn demee nag demin wokk nag demin wii booy dem da nga war a xam la ngay fa ngay dem fa fa tax a jóg bu dem topp li nga xamante ni mooy mbëmbax mi ak xumb yi am na ñoo xam ne buñ dikkee ba duñ jege sax kii dañuy dem ndax def seen géwul foofu ba tey am na yoo xam ne liñ dikk tey ba di fooy ba nañ dem waaye tey ba loolu de tey ba xoolal naari rek nañ fa demee rek naari buñ dikkee dem seen dal ba dikk ci ah eh, da kii bi penc bi même ñi wax waxi ndaq sa këndang bu ñu waxee waxi ndaq sa këndang ñi nga xam ne ñoo nekk ci ah di wër di wër xam nga nañ duñ déglu sax li mooy mooy mooy kii bi nit ñi duñ ko sax déglu ñaa ngi ña ca njaay ma ñaa ngi ca njënd ma ñaa ngi ca xoolante ba ñan ca doxante ay caaxaan yoo xamante ni borom ñi nga maam colaay goo xam ne waru sax boo ko séenee ngay foog ne borom ma nga jëm ca ah yëngu leen nga gis ñuy daagu ci digg mbedd mi ñaaw na trop loolu kuy taale bàyyi na ko bu jigéen ak bu góor rawatina jigéen ñi maa ngi leen koy dégg bàyyi leen col yu ñaaw ca Taïba wallaahi yéen a ngay lor borom Taïba ku ko def roy lor nga borom Taïba tey ñun nag nga dem ci dëkk dëkkab jaambur au lieu nga tiraangal ko yóbbuloo ko mburum gan lu mooy mburum ganam fo ak caaxaan dañ ko daw musiba bu rëy dem ci xew yi bëri na waaye jëriñu gi bëri nañ seet nag bàyyi dafa bind benn lettre gërëm mag ñi nga xam ne benn lettre boo xam ne daf ne yéen kubaraaw yi ànd ak man maa ngi leen di gërëm spécial léegi nag nañ seet mag ñooñu nañ defoon ba bàyyi gërëm leen suñ defee nañ defoon rek ñun ñu gërëm waaye nag déedéet kenn ku ci nekk daal ah kulul walaay laahu li bara li bàyyi kulul kulul walaay laahu kenn ku nekk ak say taalibe ngeen bokk seen ruq di wax seen seen seen waxi caaxaan wax leen wax yi na wax yi nax wax ñoo xam ne xaal kaali kan ji mooy lan wax leen dëgg gi nañ génn ci digg digg pénc bi nañ waxante dëgg nañ bàyyi wanewu nañ bàyyi manifeste ci biir tey ba leen loo xam ne bokk na borom tey ba nañ ko bëggee maa ngi leen dénk loolu maa ngi sant euh, Malben mi nga xam ne moo ko def pour bëgg leen ko mënee gan yéen ñëpp di leen ñaanal nag ñun ñëpp yàlla ñu tay fekk ci euh, situation bu gën ci situation yi ñu dem ci jàmm ñibbi si jàmm xiwal feeñ fa sëriñ bi yàlla na yàlla wéral yaramam ak njaboot yu njabootu euh, yaramu njaboot yëpp moom yaa xamante ni tey moom la fi yàlla teg yàlla na yàlla delloo ay sagom ci léppam taxaw bi nga xam moom la taxaw ci kanam bàyyi ndaxte bàyyi mu ne wa fi tariqi ahmadun wa ahmadu naj laa yattama fihima ma aqsidu wa fi tariqi nekk na ci sama yoon boobu dafa doon tukki naj laaya aw la mu ne sama ñaari doom mu ne naj laaya mooy kan ahmadun wa ahmadu mooy ahmed daa mi dem yàlla ko yàlla yaram ak ahmed Cheikh Tidiane mi fi nekk tey yàlla ko yàlla guddal ak fanam te wéral ko ñoom ñaar ñi ngi ànd ak man mu ne naj laaya sama ñaari naj lu yéen dooma doom lañ tamma man na fiihima maa axsid li ma bëggoon ci ñoom yëpp matee na ko kon nag ko am xalif boo xamante ni bàyyi nee na la ma bëggoon ci moom mat na waaye yow itam war a fexeel man nag yàlla yàlla may ak mat bi jaay seen ujoot allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-faatihi limaa ughliqa wal xaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wa laa ilaaha illaa siraatika al-mustaqiim wa alaa aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa